عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق euh, conseil bi ñu si bokk fii ci Médina mooy man mii di wax ak yéen euh, Cheikh Baye Mbaye Cissé Cheikh Abdoul Malik ak euh, Moustapha Ibrahim Diop ak Babacar bu euh, Abbas ak alijo ak Ibrahim euh, Faye ak maam mu nga xam ne moom mooy suñu mag ci dëkk bi maanaam juróom-ñett ci fukk ak juróom-ñaar yooyu ci dëkk bi lañ bokk fi lañ dëkk am nañ ak euh, Ndeya su ndaw mi nga xam ne jigéen la nekk fële ci Amérique ak Asikan ak Babacar Carlos Mbaye mi nga xam ne mooy ambassadeur CEDEAO Euh, nekk fële ca Côte d'Ivoire ak professeur Bamba Banga Gissé ak ñuy wax euh, Wele docteur Wele ak itam euh, docteur ak administrateur général bi nga xam ne moom lañ jël bu yàgg moom Mouhamad Gueye ak docteur Mamadou Amara Ndiaye Dia ñu am nag ay borom xam-xam ak docteur Wagan Diouf moom tam ak maître Thiam ñooñu ñu ñu amaat yeneen borom xam-xam yoo xam ne ñoom ay coordonnat ñu dañuy dimbale ci wàllu technique wàllu xam-xam coordonnateur ñooñu ki leen jiite mooy Lamine Lo borom xam-xam yu bëri ñoo ci bokk euh, ni ñuy doxalee mooy lépp lu ñuy doxal dañuy wéyal li yonent ne yàlla wax ne wasaawirum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah kenn nit ci biir conseil bi du amul droit jël benn décision lu may ne ñëpp a ci d'accord fukki te juróom-ñaar yooyu ñoo ci d'accord même buñ soree danañ def ñoo loolu lañ mujj def démb kon loolu leer na pour ñëpp xam ko mooy majlis idaara boo xam ne la seen mbir yëpp ci xam-xam lañ ko teg teg ko ci ay procédure lépp lu ñuy def dafa am yoon buñ ko war a jaaree boobu majlis idaara la dafa am programme programme boo xam ne moom lay déroulé ci at mi at mu jot dafa am lu muy def bokkoon na ci liñ mébétoon ci at mi euh, ci wàllu social ak wàllu santé ak wàllu éducation loolu lépp ci nekk am na luñ ci mébét ne ak solidarité am luñ ci mébét loo xam ne dañ ko war a def ci at mi bi mbas mii nag wàccee ci réew mi ñu xam ne dara gënt te urgent wàllu social dara gënu ko gënu ko yàkkamti ci loolu ci loolu ci lañ waxtaan man mi nga xam ne maay président commission sociale man sax lañ sant liggéey boobu bu leen xamal ne kenn du décider lu may ne ku nekk eh, fa nga nekk commission ba nga nekk yow yaay proposé dara maanaam man la ñëpp laaj ne ma loo xalaat ci mbir mi ñun ñëpp ñuy xalaat di weccante xalaat ba ñu ne mbir mii daal ni mel nii laaj na ñu gaaw jóg dugal ci li loo xam ne mën nañ ko kon sama budget man ci la ñu jël soixante neuf mille soixante neuf pour cent maanaam Euh, téeméer bu nekk jël nañu juróom benn fukk ak juróom-ñeent yi ci budget bi ma waroon a doxal ci commission sociale ci at mii loolu vraiment muy cinquante cinq millions juróom fukki million ak juróom moom la fond bi génne loo xam ne daf koo tas nag ci ni mu koy defee bi ci njëkk mooy dinañ ci jël fukki million yoo xam ne dañ koy dugal ci force covid 19 maanaam euh, oote boobu nga xam ne président ote na ko ne ñëpp na ci jàpp mille milliards yooyu muy laaj di ko dajale comme nag nguur dañ faa nekk euh, mu laaj mu laaj ndimbal laaj na bépp nit bu nekk ci réew mi wala bépp équipe boo euh, nekk ci réew mi mm, nga joxe ndimbal loolu waaye ñun ndimbal loolu fond bi du ko joxe directement daf koy jël teg ko ci loxo xalifa bi xalifa bi joxe ko ci turu bi loolu mooy première li ñu njëkk a def deuxième chose mooy ñu jëlaat yeneen fukki million yoo xam ne dañ koo jënd ay bagages wàllu ci wàllu jëm ci wàllu euh, ni ñuy protection ni ñuy protection ni ñuy fegoo mooy lan jënd ay saabu jënd ay gel hydroalcoolique jënd eau de jënd lépp loo xam ne nit dana ko mën a euh, fegoo ci wàllu set loolu nag ñu xaaj ko ñaari xaaj benn xaaj bi dafa jëm ci jumaa ji ak daara yi comme nag imaam mooy kilifa jumaa ji ak daara yépp xaaj boobu moom lañ teg ci lox moom mu seddale ko ci daara yi ak jumaa ji jumaa ji kat tëj nañ ko naam waaye jumaa ji ku ne xam na dafa laaj protection ndax euh, waxtu nekk dañ ko war a désinfecté kon dañ désinfection boobu dafa war a dem ci jumaa ji daara itam ku ne xam na ne xale dañoo dajale dañoo dañoo dajee daje boobu ñu dajee nag laaj na waxtu nekk ñuy set laaj na waxtu nekk ñu leen di protégé moo tax loolu jël nañ ko teg ko ci loxo imaam pour mu séddale ko ci daara yi ak jumaa yi beneen xaaj boobu ci yeneen diini yi dañ koy yóbbu ci euh, saram hôpital Médina bi ak fu mel ni hôpital Kaolack ak itam district sanitaire yi nekk ci commune bi yëpp ak këri diini yëpp kon euh, li jóge Médina du em Médina waaye dana yegg ci kër diini yëpp yi nekk Kaolack su ko defee loolu dañ koy teg ci loxo gouverneur moom moo géré loolu mu am benn fonds boo xam ne fonds de solidarité la muy fanweeri million ak juróom boobu fanweeri million juróom ku ne xam na ne mbir mii nii dana jur ay muxallafaat dana jur ay jafe-jafe ndax kat ne nit ñi daw feebar bi la ñuy daw waaye tëju bi nit ñi toog kenn liggéeyu kenn liggéeyul loolu dana jur ay jafe-jafe yoo xam ne ëllëg ñooñu dafa laaj ndimbal ndimbal yooyu nag moom la moo tax ñu jël fanweeri million juróom boo xam ne danañ ko jël dee dund dimbale ko nit ñi kanam fi ñu jëm loolu danañ ko programmé fii ci dëkk bi surtout surtout kuy commencé kuy nibbale sax euh, na nga commencé ci sa biir kër ku ne xam na ne kenn gënu ñoo soxla gis nga fi nekk nii euh, ku ne xam na kër imaam gii rek nga xool ne li fi daan euh, ñi sàkku ndimbal di ut si waxtu bu nekk ñu bëri ci ñoom mënatu ñoo yëngatu jumaa ji naf su sëy kon njaboot yi yëpp danañ soxla ndimbal moo tax fond bi dana jëlaat cinq millions boo xam ne daf koy jëndee dund pour dimbalee ko néew doole néew doole yi nekk fii ci ci localité bi li daal moo waral daje bi comme ne dañuy éviter nit ñëpp daj nit daje lu bëri moo tax duñ mën a guddal waaye pour leeral leen daal fond de Médina bàyyi nii lay doxe lu may waat mooy fond de Médina Baye na ñëpp xam ne doxin bii muy doxee nii doxin la boo xam ne comme ni yoon war a doxee ndax ñi ko seq yàlla dimbale leen ba ñoom ñëpp yàlla may na leen dara ci xam-xam ci wàllu liggéey ñii ci wàllu àddina ñii ci wàllu diine ñii ci wàllu finance ñoom ñëpp ñoo booloo ci fukki nit ak juróom-ñaar ñoo xam ne ñoom ñoom ñooy décider xalaat dafay jóge ci kenn koo xam ne moom la mbir euh, affaire boobu moom la laal boo gisee may wax ni tey ma porte parole fond bi waaye comme commission sociale maa ko yore lii ci man la war a jóge pour ma yóbbu ko ci ñëpp ñu waxtaan ci depuis ay fan ñu ngi ciy waxtaan ku nekk joxe nga sa xalaat ba démb lañ mujj def réunion boo xam ne à distance la maanaam mbooleem koo xam ne yaa ngi bokk ci fond bi démb joxe nga sa xalaat ne d' accord nga ci ñu génnee cinquante cinq million d' accord nga ci proposition bi ñu def itam pour ni ñu ko war a defee kon loolu PV bi génn na ñëpp d' nañ ci waaye bu ma gën a leeralaat rek ne daal mbiri mbooloo la boo xam ne du kenn moo ko kilif wala kenn moo ko moom euh, tey li ciy preuve ki nga xam ne moo ko initié muy Cheikh Mahi Cissé mii bokk ci fukk ak juróom-ñaar yooyu loolu da war a leen ñëpp Baye Mbaye Cissé moo ci bokk parce que dañoo gis ne sax ñaar ñu bokk Baye sax bokk ci benn mbooloo muy dogal warta mën a nekk looloo tax ñu doxalee noonu kon lii yëpp nag dafa war a leer ci seen kaw parce que ñu bëri ñu ngi dégg foofu xëy na xamuñ ci yu bëri waaye nii mooy doxalin jërëjëf wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin ibn abdillah wa ala alihi wa sahabati wa man wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñuy nuyu imam di nuyu mbooloo mi teew yëpp di nuyu tim ñiy déglu daanaka wax ji eh, amul luñ ci yokk lu may benn leeral rek lañ ci bëgg a yokku gannaaw boo xamee ne conseil boobu am na tëdd ni mu tëddee ay borom xam-xam ñoo xam ne looy jàngat di gëstu di seet ci jamono ju nekk lan lañ war a def ñoom bañ defee loolu ba pare dañoo dellusiwaat waxtaan ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci pay bi bañ rafetlu kàddu boobu ñu door a dem ndax ñoom démb biñ waxtaanee ba déggoo ci kàddu yi oo nañ ma ma waxtaan ak imaam dem ci Cheikh Mahi es waxtaan ak moom ñoom ñëpp ñu rafetlu ko ñaan oo Cheikh Mouhamadul Amin wax ak Cheikh Mouhamadul Aafil wax ak Cheikh Mouhamadul Makki dem ci sëriñ bi it xamal ko ne lii lañ dogoo def te wax nañ ci ñi ñëpp déglu moom it mu joxe eh, ndigalam ci loolu ndax ñooñu luñ d'accord rek boobaa moom dafay gis ne lii nii lu jaar yoon moo tax kenn dogalu ko ba conseil bi bi ñu waxtaanee ba pare dañoo dellusiwaat ci pays bi ba pays bi joxe seen accord ne lii lañu rafetlu buñ amoon yeneen yu ñu tànn tim ne lii moo gën a ittee pays bi boobaa it ci loolu lañ ko def loolu rek lañ bëggoon a yokku ci affaire bi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp ngi ñaan yàlla tim mbas mi yàlla emele ko fii ñu feebar ci réew mi yàlla saafara leen te buñ tasaaroo ci réew mi yàlla musal ñu ci musal ci réew mi musal ci jullit ñi musal ci àddina bi yëpp ndax àddina tey benn kër la lu kenn di jànkoo ci àddina rek mel na ni àddina bi yëpp koy jànkoo salaamaaleykum wa rahmatulah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى الله والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi nuyu gan ñu tedd ñi fi toog ci jiital Cheikh Mouhamadou Mahi Ali Cissé Cheikh Ibrahim sëriñ Mbay Cissé sëriñ Aliou Cissé sëriñ Moustapha Diop ak Aliou Diop ak mboolem ñi ñu àndal ñëpp ñu aju ci fond yi Medina Baye bi nga xam ne luñ créé la pour matal yéene boo xam ne bàyyi ay noonu la ko ngir luy jëriñ dëkk bi ak lépp lu aju ci dëkk bi ak képp ku aju ci dëkk bi gis naa ne dana romb mi dina bàyyi waaye dana dem fépp foo xam ne nit dañ fay uyoo rek di askanu ci bàyyi te loolu boo ko waxee kon dana waraaj na lépp ñu yaakaar loolu yàlla na ko yàlla def jëriñam yàlla na àgg ci fép foo xam ne rek taale bàyyi nga fa su boobaa fépp julli nekk rek mën na pàgg waaye kontaan nañ lool ci yëngatu bii ngeen def bii kontaan nañ lool ci ndimbal yi nga xam ne itam moom ngeen pare pour def ko dimbale ñu dëkkee réew mi ngir oyofal li nga xam ne moom lañu ragal ci mbas mi yàlla wàccee te moom rek moo ko mën a yëkkati yàlla na ko yëkkati te yëkkati ko ci jàmm da nga xam ne danañ ko nettali ci jàmm ñu ñëpp waaye taxawaay bii ngeen ci dafay nekk taxawaay boo xam ne ëllëg kenn ko fàtte ndax nit soxla na ndimbal waxtu wu nekk waaye am na waxtu bu ko gën soxla waxtu yi ñu toll nag képp ku ci dimbalee rek nit ba fegal ko xay mel na ñu dundal rek ñun ñëpp li wax ne man ahyaa fa kaannama boo dimbale benn sax mu ci mel na nit dimbale nga nit ñëpp dana musal mbooloo ay mboolo yu mbooloo ndax li aju ci jumaa yi ak li aju ci daara yi suñ leen dimbalee mooy ne dimbale nañ dëkk bi lépp ndax ku nekk rek ci dëkk bi am nga ci daara yooyu daal ku nekk ci dëkk bi itam am nga ci jumaa ji daara su ndimbal daal di matale te bàyyi dafa bëri woon lu muy wax ne man lam yahtam bi amril muslimina fa laysa minhum képp koo xam ne itteewoo mbiri jullit ñi bokkoo ci ñoom nag mooy itteewoo mbiri jullit ñi dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla seen mbir yéen itam yàlla dimbale yal nañu yàlla boole dimbale ñun ñëpp bala ñoo sonn yàlla bu mu nekk bañ sonn mu doon ñu dimbale yàlla ñu dimbale bala sonn te yàlla na demee musiba bi ak mboole musiba yi nga xam ne man koo xam man ko xam man koo sotti waxtu nekk ci mi defi lépp yàlla na ko demee yàlla deme daana ko demee yàlla na ko demee dem Afrique yàlla na ko demee ci mboolem addina bi fu nit di nokkee rek yàlla na fa musiba bi génn ni mu ko gaawee tasaare ni noonu la gaawee ci moom pour mu yëkkati ko yàlla na ko yëkkati waaw ci barke alquran ci barke yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke mawlana cheikh ibrahima ñas radiallahu anhu ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ci yëngatu bu am solo bi ngeen def di leen ñaanal yàlla yàlla gën leen a mën loo ba waxtu ngeen jógatee rek lépp lu ngeen bëgg def lu mu rëy rëy rek ngeen mën ko def yàlla ko yàlla ko def asalaamaaleykum wa rahmatulah.

Eh, jeunes yi nii am na 72 lañu recensé. dañ koy def ñoom ñoom loolu la ñu yónnee rek mais li nga ñu wax leen moom la pour dañ ko informé ni jaay ba bu ci manqué rek ñu wax leen ko jërëjëf si sa عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك